Ben projet loi Fi la koy wax kuko am na ko 2017 2018 2019 ba 2020 fenn jaglél ni nañ fi avion de matériel pour pour amul ci 2021 bi koy 2018 2019 2020 Amusi. si koy dogu 2021 lolu kon japp naa ni ay wax la kon amna lo xamanteni il faut ñu lañ ci war a def en tant que parlementaire man ak sama collègue opposition bi mooy def nañ question écrit doon ko déposé assemblée nationale loolu mooy suñu rôle pour ñu leeral ñu waaye bu ñu wax ni député yi nekk assemblée nationale ñoo ñu deful seen rôle ñoo xamul li ñu war a xam moo tax maanaam ñu wote ko si kanamu sénégalais yi loolu ku ko wax waxuloo dëgg amul assemblée nationale mosut jox autorité autorisation benn yoon ci benn bisse ni avion bi nañ ko jënd jox ko président de la république moom mi nga xamante ni mooy njiitu réew mi qui valeur 59 milliards la mu 108 millions de dollars man mi di wax yow dem na ba Perpignan dina génne dossier yëpp ak li avion bi jar publier ko fekk ñu wax dem nous sommes un pays qui se respecte. qu'on a toujours respecté suñu sañoon fu ñu dem fu ne bu président wàccee ñu xamni ki moy président Sénégal ñu respecté ko ci comportement respecté ko ci avion bi muy dugg respecté ko ci ñi je pense que cet avion là est venu à son heure xam nga ko amul lu muy wax. nekk lu nekk nga jéem ko xam nga yooyu amul importance li am importance mooy njëg gi am na fi jënd bi yoon la fi ñu ko jaarale tegu na ci aw yoon ku ci nekk di wax da ngay persistant suñu ministère des armées ñëwee ñu ne acquisition et entretien d'aéronef sama xel du dem ci ne dañuy jënd avion présidentiel damay jàpp ne on achète des avions militaires c'est tout donc bul ne jànguloo ko da nga dañu naan gasuñu affaire bi creusé wuñu ko lu ko parce que assemblée bi du discuter budget ministère des armées alors voilà un gros gros gros problème je n'ai jamais été d'accord que votions le budget d'assemblée de militaire sans débat c'est pas possible mais àddina bi ni mu bindo dafa am nu ñuy fonctionner comme jamonoy milieu siècle dernier àddina bi dafa soppiku li ci armée yi ak équipement armée yi ak dispositif ñëpp xam nañu ko donc vraiment euh, bu ñu ko defoon dafay jariñ Sénégal dafay jariñ gouvernement bi dafay jariñ gouvernement bi parce que fii am na fi am xam-xam am na fi xamu tous. fii mooy opportunité dépense je pense que fii ñi nga xam ne am nañ posture d'homme ou de femme d'État même nekk ci opposition y compris des députés de l'opposition xam nañ que la dépense c'est une dépense de souveraineté Niger a un avion présidentiel Sénégal a un budget fouf. Sénégal ci espace y ñooy le budget avons ñaareelu économie Mali a un avion présidentiel Burkina Faso a un avion présidentiel Côte d'Ivoire c'est une flotte avion présidentiel a la avion présidentiel. Burkina am bërki Dembo avion sommet Le président Ghana a un président Macky Sall balé ko lolou rafet ci yow Sénégal ato at budget ngi yokku ba nga toll ci milliards jamono wax jamono wax jamono wax affaire avion présidentiel président Macky Sall mu nga wara dem Kaffrine inaugurer ji hôpital bu fa dem Kédougou inaugurer hôpital la permettre mu def hôpitaux et bientôt ak Touba nous nekk ay hôpitaux yu mag loolu moo ko permettre ñu jël budget bi 30 milliards pour les universités Amadou Mokhtar Mbow et et et euh, Sine salou loolu moo ko permettre muy bourse de sécurité familiale moo ko permettre muy joxe CMU loolu mooy lan loolu mooy Sénégal tey permettre mu dégager ay espace budgétaire pour faire ces dépenses de souveraineté sans remettre en cause ni la politique sociale ni la politique économique de l'État